yow mii ndaw te nga amuk wér ndigg li mënal dara jigéen nee na takkal soxna yonent bi nag ndaw la wax parce que lu tax ndaw mooy dafa gën a yey ci moom parce que ndaw moo gën a aajowoo li nga xam ne moom mooy jigéen te ndaw danger yi nga xam ne dafa nekk ci jigéen seetaane man cee jëfandikoo doomu aadama ba daaneel ko la plupart ndaw lay ndaw lay gën a sonal moo tax yonent bi alayhi salaam mu ne la takkal parce que loolu moo lay protégé loolu moo lay dafa am ko ma mas a laaj mu ne ma oustaz man xale bu góor laa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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokk jullit ñi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq àdduna ak alaxira mbokki MMS TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki réew mi bitim réew yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu sàmm defal ñu tawfiq dellu si waat nañ ak yéen ci seen beneen rubrique euh, à l'école du mariage ngeen ci ànd ak seen mbokk oustaz Ibrahim Gueye mbokk yi tey dañu bëgg waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy euh, mbirum sëy sëy buñ ko doon xamle buñ ko doon expliquer lan lay signifier lan mooy définition bi lan moo ko tax a jóg lan moo tax sëy di am lu tax yàlla digle ko lan moo ci ay njëriñ yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne mënees na see indi ay tontu waaye li ñuy tàmbalee mooy suñ doon laaj sëy compréhension bi lan la dañuy wax ne su arab waxee sëy muy an nikaax walla ak zawaaj ak zawaaj laysa bi ziwaaj wala kenn zawaaj kenn du kasra zaaloon bi waaye dañ koy fatxa ak zawaaj ñu bari dañuy wax ziwaaj waaye loolu njuumte la zawaaj la ñuy wax ala wazni faal islaam bu ne nikaax mooy boole lënkale jaxase bennatle wala peere jël lu góor ak lu jigéen boole ko wala jëlee ak lenn jël lenn ak leneen boole soo jëlee soow ak suukar boole dañ la naan zawajta baynahuma mooy boole nga suukar ak soow boo boolee suukar ak soow lan lay joxe day joxe guur day joxe cafta day joxe lu neex ñu ne la jëlal ndox nga boole ko ak meew day am leneen lu mu la jox kon boole ñaari mbir yu bokkul wala ñaari mbir yu mën a ànd nga boole leen fexe ñu ànd loolu la ñuy nikaax wala loolu la ñu tudde zawaaj bu fekkee nag ci explication littérale bi nii ñu koy déggee mooy lu ñu taxarif al istilaax yi dañuy wax ne sëy mooy liy permettre sëy mooy liy permettre ku góor mën a bànneexu ci jigéen jigéen mën a bànneexu ci ku góor te duñu am bàkkaar sëy mooy liy permettre góor mën a ban jot bànneexam ci jigéen waaye jigéen mën a jot bànneexam ci góor mooy daganal góor ak jigéen kenn ku nekk mën a bànneexu ci sa moroom ci lu dagan mbokk yi loolu mooy sëy sëy mooy benn bunt sëy mooy benn bunt bi lislaam ubbi ngir góor mën a faj aajo bi nga xam ne bakkanam da koy laaj en tant que nit ci wàllum jot sa bopp maanaam jot bànneex maanaam bànneexu mu nga yàlla ni mu binde góor mooy léeg-léeg day aajowoo jigéen yaram bi dala koy laaj nga am aajo si jigéen yow mii jigéen it ni la yàlla binde en tant que nit léeg-léeg da ngay aajowoo góor da ngay aajowoo góor en titre d'exemple léeg-léeg jigéen am na fu muy toll bu gisee ay reglam ba période ovulation période ovulation nga xam ne nen yi dañuy ubbeeku moment yooyu yaram bi day laaj góor mooy day am envie sëy mais bu dee góor également am na fooy toll sa dund da ngay am envie sëy loolu day dal sax animaux yi daf leen di dal bu fekkee nag ci doomu aadama benn yoon rek la lislaam ubbi benn bunt képp la lislaam ubbi góor man cee bànneexu ci jigéen wala jigéen man cee bànneexu ci góor te mu dagan ci buntub sëy képp la ko islaam tijji amul beneen bunt borom bi wax na ci suratul muminuun mu ne ñi nga xam ne dañ fiy bàyyi ay soxna seeni soxna dem di jot seeni bànneex ci yeneeni yoon nee na ñooñee ñooy jalgatikat yi ñooñee ñooy yàqkat yi kon jot sa bànneex ci masturbation dafa xaraam masturbation mooy góor buy jonj awraam ba jot ma niwoom wala jigéen buy jonj awraam ba yëg boppam loolee dafa xaram ci lislaam te ñu baree baree bari ci ay góor ak jigéen dañ koy def am na ci loo xam ne nag feebar la tayib beneen bi des mooy dafa xaraam njaaloo góor guy njaaloo ak jigéen wala jigéen guy njaaloo ak góor loolee dafa xaram ci lislaam dégg nga dafa xaraam également ñaari góor yuy sëy muy lu ñu tudde ak ngóor jigéen dafa xaraam ñaari jigéen yuy sëy mooy muy lesbienne loolee dafa xaram kon amul benn bunt bu lislaam ubbil góor mbaa jigéen mu mën a bànneexu ci moroomam lu dul sëy loolu leer na sëy ndigaluk borom bi la suñu borom tabaraka wa taala moo digle mbirum sëy yàlla wax na ci alquran ne fankixu al ayaama minkum wa saalixiina min ibadikum wa imaikum suñu borom dafa joxe ndigal dafa ne takk leen mooy sëy leen wala maye leen seen doom yu góor yi seen doom yu jigéen ñi ñu baax ñi ci yéen tànn leen leen ngeen maye leen ci doom yu góor yi ak même bu dee ay jaam sax maye leen leen borom bi tabaraka wa taala di waxaat ne fankixu ma taaba lakum min annisaa suñu borom nee na takk leen la gën a teey te sell ci jigéen ñi nga xam ne dagalal naa leen ngeen takk ci ñoom kon takkal ci jigéen ñi nga xam ne suñu borom dagalal na la nga takk nga takk ci ñoom su borom nee na bu la neexee takk ci ñaar mbaa ñett ba ñeent loole moo nga ca suratu nisaay verset 3 yonent bi alayhi nag digle ko bal sax mu soññ ci joxe ci ay conseil ci xadis boo xamante ne ni al imaamu Buxaari ak imaamu muslim noo ko am solo rasulillahi nee na yéen ndaw ñi yéen ndaw ñi képp koo xamante ne nii man ngaa kër këri ci dara maanaam am nga ci looy xëy di wàcc lu mu néew néew néew rasulillahi nee na na nga denc dencal am ñoo xam ne li fire firee baa mooy ndigg lu dëgër mooy yéen ndaw ñi rasulillahi nee na ku ci am ndigg lu dëgër te mënal jigéen dara nee na demal nga denc soxna dégg nga bu fekkee nag amoo dara amoo loo yore suñu borom tabaaraka wa taala moo ne bul tiit bul ragal wa in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli loolu moo tax bun baaz loolu moo tax albani albani cheikh al albani rahimahullah nee na sëy facteur de développement la nee na buntu sëy facteur de développement la allahu akbar kon yow ndaw mi da ngay wut liggéey amoo da doon liggéey ñu dàq la dangay jaay doxut dégg nga da jaay du jar dangay wut muy dëgër dangay xëy di liggéey du am takkal jabar takkal maa la ko wax gëmal sa bopp nga takk jabar loolu waxee yàlla de in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli dégg nga suñu borom tabaaraka wa dafa ne takk leen ay soxna soo su ngeen amul yàlla nee na man maa leen di wërsëgal wallahi billahi wallahi mbokk yi takkum jabar day yokk wërsëg te loolu dinaa leen ko prouver takkum jabar day yokk wërsëg takkum jabar mosta nekk loo xam ne dafay gàllankoor am amu doomu aadama ak wërsëgu nit déedéet déedéet abadan kon yonent bi nee na yow miy ndaw soo amee dara loo xam ne yaa ngi ci jàpp di kurkuri nee na booleel ci loolu nga takku jabar wala ci beneen firi yow miy ndaw te nga amuk wér ndigg li mënal dara jigéen nee na takkal soxna yonent bi nag ndaw la wax parce que lu tax ndaw mooy dafa gën a yey ci moom parce que ndaw moo gën a woo li nga xam ne moom mooy jigéen te ndaw danger yi nga xam ne dafa nekk ci jigéen seetaane man cee jëfandikoo doomu aadama ba daaneel ko la plupart ndaw lay ndaw lay gën a sonal moo tax yonente bi alayhi salaam mu ne takkal parce que loolu moo lay protégé loolu moo lay dafa am ko ma mas a laaj mu ne ma oustaz man xale bu góor laa dama bëri ay fitna ci jigéen ñi lan moom mooy musal ma ne ko takk jabar amul saafara amul looy sangoo amul ñaan amul dara takk soxna rek bu dee célibataire nga moo la mën a musal ci fitna yi nga xam ne donc day bàyyikoo ci jigéen ñi ñu jëm ci yow mbokk jullit ñi saxaaba yi seen jëm bopp ñoom dañ daan soññe dañ daan soññe ci takk soxna dañ la si daan soññe kaa leen ñu jàng lenn ci waxu saxaaba yi kaa ñu jàng lenn ci waxu saxaaba yi lu lay won na ñoom dañ ci daan dañ ci daan soññe xoolal Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud nee na law lam yabqa min ajli illa asharata ayyaam wa aalamu anni amuutu fi axiriha yawman wal wali tuula tuulu neka fa fiihinna lata latazawajtu maxaafatal fitna Abdullah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud saxaaba bu màgg la woon ku ragal yàlla la woon macha allah nee na su ma yàlla xabaare woon ne fukki fan dong moo ma dese ci àdduna nee na fukki fan moo ma dese ma dund juróom-ñeenti fan mu dese ma benn fan dong nee na ma am possibilité takk ci soxna. nee na dinaa profité ci benn fan boobu desama ci àdduna ma takk ci soxna dégg nga seq-seq ndaw si ragal fitna danaa ci takk soxna balaa maa dee ci benn fan boobu ngir ragal fitna xoolal ma ñii fi ñu tolloon ci xalaat xoolal ma ñii fi ñu tolloon ci niveau de responsabilité xoolal ma ñii fi ñu tolloon ci ragalal seen bopp tàbbi ci fitna xoola Abdullah ibnu Mas'ud xoola Abdullah ibnu Omar Abdullah ibnu Abbas ngeen baal ma Abdullah ibnu Abbas dafa mas a wax taalibeem boobu de Saïd ibnu Jubayr da ko ne woon tazawwaj fa inna xayra haadihi l umma aktharuha nisaan Abdullah ibn Abbas nga xam ne yonent bi tagg na ko ci xam-xam ak ragal yàlla bal sax mu bokk ci waa aljanna di ab saxaaba bu yonent bi yaral boppam moom moo ne woon benn taalib bu tudd Saad ibnu Jubayr mu ne ko takkal soxna soo xamal ne xeetuk lislaam ki gën ci xeetuk lislaam maanaam ngëneelu xeetuk lislaam nee yàlla mu ko def ci ki gën a bëri ay soxna maanaam ki gën a bëri soxna bokk na ci gën ci xeet wi bokk na ci gën ci xeet wi te effectivement yonent bi moo ëppoon ci xeet wi ay soxna tey moom moo gën ci xeet wi kon nee na bokk na ci ngëneelu lislaam mooy yor jabar yu bari yor jabar yu bari benn borom xam tudd Ibrahim ibnu sarata moom dafa mosoon wax benn borom xam-xam benn waay ne ko di nga takk soxna mbaa danaa la wax la taawus waxoon waaja ne ko ñaari mbir boo gisee ab célibataire boo xam ne laq na ci trente cinq trente ans jëm quarante amul soxna benn ci ñaar yi rek la célibataire bu góor laa wax célibataire yu góor yi nan ma déglu bu baax li may wax ñoom ñoo ko moom nee na saa yoo gisee ab célibataire bu góor boo xam ne làq na 30 ans jëm 40 ans lànk na du takk soxna nee na ñaari mbir yii benn ci ñaar yi moo ko tere imma muy ab kàccoor ab bandi boo xam ne day bëgg di doxaan yor jikkoy seq ginaar gu jigéen gu mu gis jàpp ne jabaram la mbaa mu yor jikkoy bëy bu góor jàpp ne bëy bu jigéen bu mu rek jàpp ne mën na laa war mën na laa yéeg kon bandi dong ak bëgg liberté dégg nga moo ko tax a yéex a takk son bu ko defee muy topp ci xale yu jigéen di raasaatoo ko tëltëli benn la ñaareel ba mooy imma dafa tële mooy imma tubéy ja doxut tubéy ja doxut muru sa takk soxna kon ñaar yi rek la mooy foo gisee ab célibataire bu xam ne làq na sikkim baa ngay wàcce sa dënd ya dégg nga takkut soxna nee na ñaar benn si ñaar yi imma ab bandi la buy topp ci xale yu jigéen ñi di tëltëlee ko raasaatu wala muy doon koo xam ne tubéy ja la ca biir tubéy ja nekkul di fonctionné kon yow boo bokkul ci ñaar yooyu la nga takki soxna al imaamu ahmad al imaamu ahmad xam ngeen imaam ahmad rahimahullah moom nee na laysatul usubatu min amril islaami fi shay'in nee na mbirum célibataire bokkut ci lislaam nee na toog rek di célibataire bañ a takk soxna nee na loolu bokkut ci lislaam lislaam encouragé wu ko taggewu ci soññewu ci bal sax day yedd ki nga xam ne daa toog di célibataire di xale bu góor lànk ne du wuti li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy soxna nee na wa man daaka ila gayri tazwij faqad daaka ila gayri nee na ki lay ci nga toog di xaar naan daa teel bul takk soxna toogal daa di la xaarloo nee na yëgal ne mu lay woo ci lu dul diine kon diine mooy takkal jabar ca ba muy teel al imaamu shafii rahimahullah xam ngeen ko nee na ataxalli li ibadatillahi taala afdal li anna allah taala madaxa yaxya alayhi salaam nee na nit ki teel takk soxna teel takk soxna ngir mën a muccal boppam ci ay fitna tënk boppam ci jaamu yàlla nee loolu moo gën donte am na xadis boo xam ne dëgërul trop ci wér gi dëgërul trop waaye mënees na ko layee mooy nit ki bu takkee soxna genn wàllu diine mën naa mot xadis boo xam ne euh, dëgër na torop ci cadre layal ko kon mbokk jullit ñi lii lépp ay xeeti ay xeeti soññe la dégg nga bàyyi ko ci saxaaba yi dégg nga ngir yonon ngir nit ki takk soxna yonent bi alayhi salaatu salaam benn bés dafa am saxaaba yu ko seet si woon ñenn ñi biñ ñëwee ñu laaj soxna yi yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko nu muy dunde ñu wax ko na muy dunde dégg nga ñu ne ko ñii am ñu ne ah yonent bi day daana julli guddi ba mu yàgg mu tëdd nelaw ñu ne ah waaw moom day daana jàng alxuraan waaye it daana toog ay du jàng alxuraan maanaam yaa Aysa waxal gaa yooyu ne yonent bi di jaamu yàlla saxaaba yooyu mel ni dañ koo xeeb daal kenn ci saxaaba yi ne ah comme yonent bi moom mooy jóg di julli ba mu yàgg mu tëdd nelaw te moom yàlla jéggal na ko boole mi man moom damay fase sama soxna yëpp dootuma am soxna su ko defee ma yittewoo képp rek di jaamu yàlla bu yonent bi yégee loolu dem seeti leen ba gis leen di leen corriger di leen weddi di leen dajji dégg nga ci la wax kenn ki ne ko walakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawaju nisa faman raxiba an sunnati falaysa minni rawahu buxaari yonent bi alayhi salaam ne leen maa leen gën a ragal yàlla fop maa leen gën a bëgg yàlla fop maa leen gën a bëgg a man damay woor di dog di julli di nelaw maa ngi ay soxna di seeg ñoom am naa ay soxna di seq ak ñoom di seeg ñoom kon képp koo xam ne danga fee bàyyi sama doxalin yonent bi alayhi salaam ne koo ci man kon mbokk yi lii ubbi la woon rek. pour wax la sëy li ci lislaam soññe ëpp naa sàggane kon képp kuy góor taxaw ci taxaw ci foofu la ñuy yem ak yéen tey di leen jox dig daje beneen rubrique ñu ñëw nag wax ak yéen ci attey euh, sëy ndax farata la ndax sunna la ndax dañ koo sopp loolu bu ngeen ñu toppee rubrique bii di ñëw ci la ñuy ñëw ak yéen noo ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ko axiru daawaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh